mbokk yi ànd ak ñun seetaan déglu tey dañu daal di indil leen produit organique muy benn mélange bu efficace boo xam ne daanaka dafa lay dimbali ci wàllu kattan ci wàllu énergie muy produit boo xam ne lañ ko defaree seen ne leen ko muy ay produit yu naturel defar bi yomb lool li ngay def rek mooy dangay jël benn kaasu ataaya nga def ci ndox bu tàng jël ci benn kudd bu ndaw ci melonge bi sotti ci mu seey nga daal di ko naan comme du thé su la neexee nga naan ko deux fois par su la neexee nga naan ko trois fois par defar bi yomb na defar bi simple na defar bi gaaw na jëlal ndox mu tàng ci kaasu ataay comme ni ngeen ko gisee ni jël ci kudd bu mu ndaw sotti ci yëngal day seey parce que niñ ko defaree defar bi du fi toog sax di xaar su boobaa nag nga jël ko comme du thé naan ko su la neexee deux fois par su la neexee trois fois par jour produit organique 100 pour cent naturel ak biorahma nee na saa su ne rek dañuy indi yu bees moom ngeen gis nii donc produit baa ngi nii di ñu ko defee mélange bi lii lay jox donc gis ngeen produit organique baa ngi nii gis ngeen mélange yi doo fi nekk di di sonn di ngay def mooy jëlal kaasu ataaya nga def ci jël si kuddu bi ci produit bi mélange bi sotti ci bàyyi mu seey nga daal di ko naan